tubarkal jërëjëf namaste kon man jarumaa gaaral waaye li ma leen wax dara du ko dindi milliardaires yi ci réew mi seen jeg yi ca kër ga lañ nopp maa ko wax man Mamy Cobra ma ci mere na ba di ma gaaral snap loolu saw cottax soo toogee ne Mamy Cobra tubarkàlla macha allah kenn nobu ko ñàkk koo noba tax ndax yow kenn nawloo wala kenn nangam sàngama la woo buñ ma nobul jëf kenn du namp sama weeni ba mel ne mbuusu gar kenn du japp sama ci si du ko ulbeuti ba melni bop xar wala ta fan wala melni ko yor sap sap sap sap sap seen rek lele nga lal tiorkat TFM war fajar wala dunia la pesas al tapeur tabarakallah ma na bu ñu ma je suis très ferré masàlla tabarakallah je suis très ferré man duma fek binti benn tëkkiru jàmbur man du ko nopp ba may jarali lii xalaatuma ko nga may gar wala yo xam nga ne boo ma gaar la tontu yow yow mi nga xamne yow lañ gis nga sa bop sérieux nga ba yakku cerise nga cerise cerise cerise cerise ba yàqu ñamal naa la lii tey nag su ma demee boo xaat gis sa sinab nga bindaat bu ma taalaatee doo jàmm ndax man neex waaye yow miñ nopp jeexal nan la sa tus yooyu chaque jour ñu jàpp onde dunia wala bu ñu jàppee dunia pare dem rdv mu xew ma jógee rdv mu xew ma dem tfm wala dem 2STV bu ñu jógee 2STV daal di la puissance al tapiox daal lay bàyyi nga dem may lay min yoo nga yaakaar ne nekk ngay dal loxu ak a doon loxu naan nu ma neex lay doxee waaye àddina nga sa kanam man na kenn noppa man moom dëgg la de man moom dëgg la de benn milliardaire ma fekk noonu waaye mucc naa ak kamaa mucc tata man samay cus ngi nii meloon ni garabu yoo waaye yor ay cus mu mel ne baaraam wala bopp bopp xar ah boo solee bëri sa cus yi ne ñun mel ne ay bopp xar maa des subaana ma meski namaste chéri su ma waxee dama leen di sensibiliser dama leen bëgg rek ndax man xam milliardaires yi seen la ñuy nag buñu amé sen seen am sen ñaar ñun tak duggal li sen kër ñop ñu buñu léegi bu yow ñu xol xemam xool fi do xemam la dañ lay iri tëdd la nap sawé ween sawé ween meen mbuus galaas maa ko wax nëbb ma ko man milliardaire bu ma doon doxaan damay bañ barke ju fallu mak man na xol xale yu góor yi fere top ci pa yi rek top ci paa yi nga xamné ñok sen jabar ñom mal la xondo sen jabar ñom ñom mal la xondo man damay xol ko may mal la xondo Hamza yi topp naan milliardaire milliardaire milliardaire milliardaire ba ci lan jeunes yi frais yi nga xam ne ñu léeg ak yow boob la léeg ñu toog taxabal mbantamba paa dañ laa mëna fap wala ñu laa mën wala ñu mëna bëre ak yow ah baalal ma chéri aw ma de ta yalla bu maam am kanta ka am ni barke Serigne Fallou barke man sama far xalé la amul sa amul sa 40 ans 35 ans la ko 36 ans barke yonent bi loy wax rek baxna loh wax rek baax na te pourtant man ba may wax man sa dama doon kaf man ba ma doon wax dama doon kaf de man dama doon kaf naan ay maytu leen ñetteel ak maytu leen ñaareel ak nobbu ñu leen nag yaa ngi dégg lu ku ne ku ne ku ne ku ne ku ne ku ne rek ma saa man noonu laay may man damay kaf rek mais boo ko jëlee di ko sa bopp di dem ci seen abbee yow xam nga ni man su ma taalee sama live bi tamit dinaa la xaw a ñamalaaleel tuuti du ma xuloog yow nag ndax man dama laa bëgg ndax tubaarkàlla macha allah man bëgg naa la yërëm naa ndax yow bañ na ko boo toogee da ngay cenkal yu mënoo toog ba baax na sa tuun gi fi mu toll nii macha allah du yàpp yow sa taat du aw ndawal yo sa taat aw kusu la yo sa na aw kusu ngay dag sante chéri ah pa milliardaires du duñu tak rek ngeen bëgg nga bëgg ah waaye yow yaa ci gis fi bopp fi ñaata influenceur fi ne jongo ma ay milliardaires leen doxan yo lo ma ta tonto ne ci sa sina bin rek ñaan ah man de nah, nah, man dama waru man baal ma bu da nga mer jéggal ma chéri waaye seen jabar ci seen keur yi la nok barke Serigne fallo bu sa jax réew càmmiñal ma ko kontaan ba xam li ma len wax dañ lay japp tëddee la tëddee di la may million million luñ la may day naaw ni ngalaw bu fekkoon ñoom seen xaar day tok sax ñu mëna wax mais barke Serigne Touba Mbacke seen tat day melni ngalaw seen day melni ngalaw du tok lo ci def nañ la may nga dem jënd bagage bo ñëwé wu na Serigne Touba Mbacke soko jaay du jar de du jar man far rek far far rek soo ma mayee xaalis su ma tukkee ba mayee xaalis dama ko yónnee Sénégal ñu am lu ñu ma ci defar mais duma ko jëndee bagage day mel ni ngelaw lii maa leen wax secret boobu wala na leen ko may ci xol bu sedd ngeen jël ko def ci leneen mais boo leen ci dugalee ci jaay jaay daa fiir mun a yor ay taatu kaw su bëgg maa tontu. ko xamne bo toge day fengalu da ngay fengalu di ciegal bo topp ngay top jëkkëru kru yi maa ko wax yeen influenceur yi bari da ngay wara liggey di sensibiliser nit ñi di jàppale nit ñi di dole nit ñi nit ñi bu amé problème ngeen genn wax ci nit ñi bu amé ku feebar ngeen genn def vidéo bu ene amé ku feebar ngeen ketal ko non la nit di def bo amé tur tur bu la jarignul bo jarignul askar yu koy jarign yow ya, daal sa tour yow ya, rek lay jarign yow ya, rek ah kon dama maa subaan kon dama subaana boobu influenceuse man Mamy Cobra ñaaw naa de dëgg la de xas nga ma nag nee nga ma yow benn milliardaire du la xool di ronab sa gémmiñ ñaaw na say bëñ ne na xaw ma la ni moom daal bind na lu ko saf mais man ba mu bindee rek laa xam ne kii man lay waxal na noo koy déggee rek nga xam ne man ma ne laay ndeysaan xam naa la ma wax la ma wax la mer ndeysaan bi laay te moo ne man waxuma dara de am na ñuy wax lu ko gën a pire lu ko gën a pire ñu yor sa tuunu ko soppal bëgg yor ko tuunu ko yor tuunu yàpp tuni ya pala yo tuni ya pelaya, ya namanya namanya dore dia sama saf dia dia tanah kakak kakak kakak kakak tap ya mau dia lagi dari patang jig jig <laughs> wah ayo <laughs> Astagfirullahaladzim, julin coklat, gila, lepas deh.